jël avance bi ñu géem ñu géem tuus lu neex baaxul lu neex biru lu neex ma daan la déggoo ma de déggoo ma de eh bëri lu neex tuus lu neex sa baaxu laal la man aw ma baaxu mais lu ñëw ma fecc ko sama baaxu lan la biir laa déggu ma de ma daasal la feccal la Baara Mbaye léegi. Baara feccal dafa lu la neex. mais lu nga def de amul importance. <laughs> déggu ma de lu nga def lu neex. ki daa mën a fecc lu eh. neex. kii kii amateur yi ñëwuñu ci làmb ndax feccam dañuy ñëw ngir lan mu naan kase. waaw kon sant yàlla la. mais man comme nga amateur yi ñoo ngi daggal billet di ñëw di seetaan sama geste bu may def. ah, ah yaa ko wax de. parce que loolu lañ la xamee. waaw kon jeex na ñoom ñoo ngi dagg seen billet du ma ñëw seetaan. mais nag loo ci xamul kii bëgg la woon mais daf mel mu ngi lay bëgg. ah mu mu ah. ko bëggee non bañu ko de. mais ci làmb la wax. man xam naa ne yàlla xam na ni bañu ma ko. non non si làmb maanaam si làmb noo ko yéenee lu ñaaw. man xam naa ne boo ko bëggoon tey tey mais amul lu yomb quoi dañu wax dëgg dañ koy taxal làmb amul toog fii di draayante est que ma ko yaa ngi dégg kii su ma ko romboon muy dund leneen billaahi dama si teg sama baxan parce sama mbokk la bu dul dara mbër la ni man du ko ñàkkal fayda ci yeneen. mais nag mais xam naa ne yow da ngay làmb. naa ne da ngay dundal lu amateur bëgg da nga koy bëgg. nice mais combat bi amateur yi duñ ko bëgg nag Baye Mandiaye. ma wax la benn affaire di nga dégg Baye Mandiaye am na combat bu baax du yàgg dara. d' accord naa li nga. waaw parce que xam la moo tax kii di ma sonal suñu làmb. Hmm. Ousseyn maay fecc mu neex. Ousseyn yow xam ngeen Baye Mandiaye li muy indi stade bu baax maay indi mbooloo bi maa koy yëngal bu baax a baax moom du def dara day dox si ñu naan anam bu fan la nekkee man damay bëgg a bëre koo xamante ni day saf dañuy waxante pare saa sax ñu am ñu defante ci stade bi ñëpp yuuxu amateur ñu am luñ maanaam bu ñu ragalante lu mu laaj ñu def ko mais kii ay combat yu mel day raam diré ko nii colli colli ba ñu woo ko ba sa baaxu lan la tëggal sa baax mu neex ma xam. Ousseyn waxuma Ousseyn waxuma Ousseyn Ousseyn yow nekk si tëggal sa baaxu mu neex man damaa ma sa baax benn baaxu da nga may déglu déggal ma da ngay bégal amateur wala bégalu waa déglu ma déggal nga jug jugal taxaw sa yaram bi ay cote la damaa xam ne waa léegi déglu ma waa déglu ma yow léegi nga yaa ma ëpp supporter yaa ma téeméeri junni yow waaw léegi yaa ma dàq lépp waaw jëlal combat bi ñu xool yow ma jël combat nga bëgg waaw jugal nga feccal ma a may non non man affaire ñàkk fay dooyu mel ni ku manipulé xale ñu dem non non déggoo ma de affaire ñàkk du ma xale boo xamante ne damay nekk fi ñu may fecculoo pour ma jël combat feccoo Baara Mbaye du ma jël combat bi waaw yow ñàkk nga <laughs> fulla yow tant que feccoo ko du ma jël combat fulla yow mais est daa mënul Baara Mbaye doo ko may tuuti mu xam non su ko feccul dab da koy sàcc su ma ko feccalee da koy sàcc dem seen koñ di ko jàng boo ko feccee whatsapp sax ñu envoyé ma ko ma jël combat Baara Mbaye ah, bu bu jaar yoon nag dégg nga. <laughs> gis ngeen mbokk yi. li li rek nga am li rek nga si am. mais combat bi doo ko jël gis ngeen lii dama dama namoon lii lii dama koy bëgg ci jàmmaarloo parce que dafa war a neex lii Coumba Gawlo wax naa dina neex dina yëngu gëm naa ne combat bi tam bu taxawee noonu lay demee dina neex dina yëngu. maam moo daanu góor boobaa lépp leer de. ah ma ne su boobaa lépp leer. ba yow bu ba ñëw ba stade nga war a tuut fee coobaara mbay sax damay ñëw. naan kii daf may yablu quoi. dégguma